ñun dañu ubbi fi maire bi dafa ubbi kàggu bi nga xamné mom moom jaglél jagleel képp ku dëkk ci commune yeen biñ koy taxawal évidemment monsieur le maire am ay partenaires yo xamné ñi dañ na ko dañ la jappalé ci tabax bi ñi dañ la jappalé ci équipement yi mais mom ci bopam mu am xelu comme université Dakar lay jàngalé gis né am na ñuy nekk université Dakar difa fa jàngale te dëkk ci commune bi lolu di sen spécialité mu woñu ci bi ñu ci wooyee aussi nag ñu sawar ci alors li ñu fi wut moo di université dañ ne ñetti mandat la am bu njëkk bi mooy day jàngale bu njëkk bi ci tege mooy day gëstu ñetteel bi mooy dafay jege askan wi mi agsiwul université di leen jox ci xam-xamu université donc ñun loolu la ñuy wut si fii maanaam au ñuy toog ba gone yi fekk ñu université ñu leen jàngal ni ñuy liire fekk c'est peut-être même trop ñu fekk si leen fii bi ñuy xale ci école primaire yi ci collège yi ci lycée yi fi nekk ci association sportive et culturelle yi ci organisation de jeunes yi fexe ba bibliothèque bi séq ak ñoom demalante ak dikkalante goo xam ne suñu yoree seen téléphone portable di lire ba mu yàgg ñu teg ko jël seen livre di lire jóge ci livre bi dem ci téléphone bi jóge ci téléphone bi dem ci ordinateur bi loolu mooy l'accès à l'information d'un point de vue général ci loolu la ñu monsieur le maire boole ñu di ko ci gërëm di ko ci sant parce que mënoon na ko def te duñ ko yëg mais nag moom comme askan wi la ko jëmle mu xam ne képp ku fi nekk rek te am loo xam loo xam ne mën na servir mu laaj ñu ko te bu ñu ko laajee munu ñoo bañ parce que d'abord suñu rôle la suñu fonction la suñu mission la mais moom it dañoo séq ak moom loo xam ne lii bu ñu laajee ñu bokk ci